waaw c'est ñoo ngi ci bis yu ñu jagleel mbirum njàng beeg njàngale ci àdduna ñu tuddee ko semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 daaw ñëpp xam nañ ni màggaluñ ko simplement parce que ñoo ngi woon ci otu mbas euh, ren nag ñu yëkkatiwaat ko mais bi yoon ñu jël ne war nañ koo yëkkati ci biiru loolu ñuy tuddee mbirum euh, xaalis bi ñu war a jagleel mbirum njàng ak njàngale bi parce que justement gis nañ ni bi mbas bi ñëwee fàttali nañu ni euh, njàng ak njàngale dafa war fàttali ko aussi lépp lu wër lekkool bi euh, bu ñu xamee ni yow tey am nga benn école ci ñaar yoo xam ne ñoom kese ñoo am ndox mu ndox mu ñu mën a naan nga gis ni boo jëlee ñett école ñaar ya euh, seen i mur wala seen sécurité manqué na boo jëlee aussi fukk école ñeent ya euh, am nañ ay jafe-jafe pour am gànnuwaay konte nag mbas bi nee nañu njàng ak njàngale weesu na classe bi waaye it li ko wër dafa nekk lu ñu war a yittiloo loolu nag pour mën koo jëf da nga war a góorgóorlu ci li ngay def ci Euh, li ñu tuddee budget investissement or tey doo boroon analyser euh, suñu budget wu réew da ngay gis ni euh, fànn boobu nga xam ne moom la ñu jagleel investissement bi ñetti at yu wees yëpp dafay wàcc cinquante milliards la woon ci at bu deux mille deux mille dix huit wàccaat trente milliards ñu waat vingt vingt vingt huit milliards donc ça veut dire que il faut ñu gën a fulal gën a ful loolu nga xam ne ñoo ngi koy jagleel lii wër l'école bi loolu mooy benn bi loolu nag pour def ko. Euh, dañu jàpp ni li koy waral mooy ñu nangu ni suñu réew def na ay jéego ci xaalis bi dugal ci njàng ak njàngale bi ba mel na ni sax koo xam ni weesu na li ko àdduna di laaj mooy boo jëlee euh, euh, cent vingt six ko ci dugal ñun kon nag jàmbaar lañ parce que àdduna moo ngi laajte ñaar yi kese wante kon war nañoo góorgóorlu ci naka la ñu war a mën a ñoŋalewaat ba amaat yeneen fànn yoo xam ne lañu amee xaalis bu mën a gunge njàng beeg njàngale parce que coow li fi am lépp xaalis moo koy faj. coow li mooy lan mooy war ngaa am ay jàngalekat yu yokk jàngalekat yooyu fokk nga lijjanti xaalis boo xam ne moo leen di former di leen fay nekk fekk ñoom cool li mooy war ngaa yokk classe yi classe yi it xaalis moom mooy li nga yokk cool yi mooy war ngaa yokk euh, loolu ñu tuddee mooy support yeeg intrant yeeg euh, gànnuwaay yi euh, mooy yooyu yëpp donc dafay laaj évidemment que suñu réew mën a gëstu ci naka la mën na lijjante yeneen façon pour mën a euh, pour mën a financé éducation bi loolu nag am na loo xam ni suñu assises nationales yi wax nañ ko am na loo xam ni euh, jéem nañ ko ci suñu réew ak yenn réew gis nga ni ñu tabaxee suñu aéroport bi dañoo jël euh, billet d'avion bu ne ñu am nañ ci teg ne loolu dañ ko jagleel njàng beeg njàngale njàng ak njàngale war nañoo mën a jagle loolu suñu réew am na alal bu ñu jëlee suñu programme bi nekk ci maatam muy Kawral li ñuy wax mooy cool yi am ci ressources minières yi phosphate beeg pétrole bi waaj a ñëw ak loolu yëpp war nañ ci jël ab pàcc ne lii mbirum njàngale bi ñu bokk lañ ko war a jagleel loolu tànk defuñu ko euh, bu ñu deful ndànk dañuy nar a yem kese ci loolu ñuy tuddee euh, quotidienneté euh, di gérer tey kese waaye duñu am lu ñuy planifier ba nga xam dañ daan fii yëkk ñetti at fukki at wala juróomi juróomi at mbirum jàngalekat dootuñu dana danañ ci am lu doy te motiver mais en ensuite table banc dana mat équipement bi dana mat loolu kon moom mooy li tax évidemment ñu jëm ci ci mbirum jàng ak ñu jëm ci affaire financement bi ci semaine mondiale d' action bi semaine mondiale aussi fàttali nañu ni. booy wax mbirum financement de l'éducation suñu réew malgré jéego yi mu def euh, dafa ñuy fàttali ni euh, jéego yooyu dafa war a lalu euh, ci ci ci ci ci ci pàcc pàccaat yëpp parce que boo jëlee loolu ñu tuddee petite enfance muy xale yu tout tànk yi ñëpp xam nañ ni boo bëggee tabax tey njàng bu ñooy il faut nga tàmbalee ko ci suuf kër sax boo koy tabax fondation bi dafa solo te tey boo jëlee téeméer benn fistine lañ ci matul sax fistine lañ ci jagleel. Euh, petite enfance loolu nekk lu xel mënta nangu mbirum langue nationale yeeg non formel bi naka newoon naka noonu kon nag war nañoo góorgóorlu ci fànn yooyu ba nga xam ne dana am plus d'équilibre tas ko ba xaalis bi ak li nga xam ne déy na gunge jàng-jàng bi dana dem ci suuf ci gox goxaan dugg ci école yi loolu mooy li nga xam ne pour ñun euh, tant que defuñu ko évidemment que dana am ay jafe-jafe ci am un système éducatif boo xam ni résultat yi muy am dana tolloog li nga xam ni euh, moom lañ ciy def ci xaalis beneen bi nga xam ne jàpp nañ ko mooy gis nga coow li am ci mbirum euh, euh, mbirum xëy mi nga xam ne moom lay xale yi di laaj jeunes yi di ko laaj te mu nekk loo xam ne xel nangu na ko pour ñun nag solution bi sax euh, yemul ci jël ay enveloppe di ko joxe mais mooy nan ngay mën a fexe ba dëggal diggante bi war a am entre li ngay jàng ak li muy mën a jariñ ci sa li muy mën a jariñ yow sa qualification ak ni mu la mën a joxe emploi ak liggéey donc nan ngay autonomiser nit ki loolu si njàng ak kese la mën a jaar konte nag pour ñun solution bi dana dem ci adéquation éducation formation emploi vie donc loolu évidemment il faut que en plus des efforts qui sont faits par la formation professionnelle il faut que suñu réew aussi gën koo gën koo ñogal parce que réew yi nga xam ne yëpp li ñoo ngi lijjanti ba wàññi chômage bi ba am xale yu am ay xëy fi ñu ko teg mooy fexe ba seeni doom ressources humaines yi am qualification yi war a mën a tax ba bu leen nguur jëlee ñu liggéey bu leen nguur jëlul ñu liggéey kon te mooy li nga xam ni wax dëgg yàlla feeñ na ci mbirum semaine mondiale d'action 2021 bi.